ay jikkoom yoo xam ne war na jëpp doom di nekk ci moom ndax mel ni moom lu la moo bari diine bari ngor ta war ñi xam la ko war wuute wala kun yónni la kersaaki taggil moo ko am te mat wëllëra nel du xeeb du naw moo bari jom ñi tañu ku sell la dara du yomb fi tam dara du tax mu ras ba joxe waaw jumaay Touba mu def ci juróom-ñaari milliards jumaay Ndakaaru mu def ci ñetti milliards tey fanaan ci terrasse boo amul climatiseur doon na ko nag ci waajuram wii mu dëkkal tey muy sëriñ Cheikh Khady li mu yokk ci jumaa ji te ñu ko fekk ci néegu ñax bi sëñ Cheikh Khady ko def waaye sëriñ bi président la république li mu am lépp tey indi na ko indi ko daaru xam nga délégation buy ak nii ñu ràññee. Macky Sall yónni leen président li mu am lépp ñëw na Daaru Mor Ngom mii baayam dafa àndoon ak Cheikh Moustapha ak Serigne Cheikh Gaynde ma moo ko yóbbu mu jàngi Sarr bi nga xam ne moom lañu ñu dégg commerce gis nga ko mi ngi nii kee toog mooy Pape juuf maamoom sëñ juuf Diouf Lambaye ak sëñ maane ak sëñ Babacar Ndiaye Targaan tanoorub goñ tari biir mi da leen woo ni leen bàyyi leen sëñ tubaa ñu ko noo lank tekk sa ndoom ak tànk moo gën a yomb lii nga def Omar sëñ Basiiru ëpp na waaye sëñ ma naar doy na Omar yu ma ngi nii di xale bu baax kee toog nag sëñ Moussa Basiiroo ko jur ñaari cër la fi ñëwee maam xarit Mbakke Cheikh Mbakke Sakho ngi nii Gaynde Fatma lañ ko tuddee mu yàgg ak président Macky Sall lool gouverneur a ngi préfet yaa ngi nii kon kay euh, Macky Sall tey li mu am lépp indi na ko fii ci Daaru Abdoulaye Seck Sadaga mi ngi nii. waaye sëriñ bi Mamadou jaañ Fada day doomi Daaru Musti moo ker Cerno Lo yaakaar yaakaar Cerno Ibrahim gëm Cerno Ibrahim sopp ko wóolu ko mi ngi nii toog ànd ak Mamadou Ndiaye directeur cabinet maître Madické Niang ñu ñëw teewal fi Abdoulaye Wade gis nga sa sa mbokk yaa ngi nii sëriñ Mahmadan Mbacké waa kër ma nga ne sëñ a nga ne sëñ Mahmadan Jobé moom Cheikh Massamba sept tonnes cinq cent la sëñ Touba way Rasulaay yëpp Cheikh Massamba Maas mujjee woote ëppi dongo sutub sooroor gën jumaa yetti mag daje ci moom màggal gu mag gi jumaa ju mag ji sa maam rek te bi sëriñ Tuubaa dem ci géej gi lu mu yoroon lu mu yoroon te bañ mu yàqu Cerno lu ko dégg dafa roof tànkam ca déggalu ngelamu la bi loxo mu teg ko ci sëñ Moodu Moustapha bi mu teg ko ci sëñ Fallu dénk naa leen yàlla ak yonent bi ak seen bàyyi Cerno waa moom rek moo mat a def te moom la moom ngeen def borom ngan kii toog tey ci Daaru Musti bu réew mi jaxee wala melenum réew moo koy réglé bi mu ñëwee la Korité yi doon benn bi mu ñëwee la tamxar yi doon benn bi mu ñëwee la tabaski yi doon benn barki dem sëñ Abdou Al Amin moo ma wax moo ma ne bi may départ Tiwaawoon di ko fekki tawféex dama ànd ak ñëpp waaye mu ne Ablaye mënu ma Sëriñ Tuubaa laa fekk tawféex mënu ma nee bi ma dugal maa ngi moom nu toog mu ne ko ñëpp may nañ ma bàyyi ma wax sama rakk ji laaj ma diini ji laaj ma tariixa bi laaj ma Tiwaawoon laaj ma réew mi nee na yemu ci ne kilifay diine yëpp la ma Cheikh Sidil Maxtaar woo barki dem bit mu woolu ma ma toog ci wetam mu ni ma su ma doon sama sago dëkk cosaan ya daa tëgg ak a way fetale di fa tàkk te amulu jàkka recensel ma ko yëpp ma dafay jàkk xaadim borom nit ñi mamaratal siiñ ba bale si bur sëñ mbakk maaram mu je woote appi dongo sutub sooroon gën juma yettima daje ci moom màggal gu mag gi jumaa ju mag gi rek bisimilah. aouzu billahi mina bismillaahi rahmaani rahiim mbokki jullit yi mbokki taalibe yi ñoo ngi leen di nuyu yéen ñëpp kenn ku nekk ci turam ak ci santam di leen nuyu tam ci kàddu Cheikh Sidi Mokhtar xalifa général de Mouride waaye mu jaarale ko ci Serigne Moustapha sunu mag yi ñu àndal mu jiite délégation bi ak ñi ñu lim léegi ñëpp ñu di ko dégg. di jiital ci nuyoo boobu sëriñ Cheikh Khady nga xam ne moomoom moom penc mii tey jiite ko taxawal bis bi magam yu tedd ya ko jiitu woon di ko taxawal ba yegsi ci moom mu wéyal ko di ko defee nañu ko daan defee may jël nuyoo boobu di ko toog ci loxo sëriñ Basirou ak sëriñ Abdou ak sëriñ usmaan ñu jottalil ñu ko sëriñ bi muy nuyoo Cheikh Sidi Mokhtar ak siyaareem ci bis bi bis bu tedd bii tey ak ay cantam ak ay ñaanam yoo xam ni amul tàmbali amul yemukaay di nuyu itam ñi nga xam ne dañu fee teewal wàllu àdduna ji di ñi fi teewal njiitul réew mi ak ñeneen ñi ci des ñëpp di jiital ci nuyoo boobu Mor sama xarit di di ko jot li nuyoo sëñ bi di sàkku ci moom ak ñaanam ak siyaareem di sàkku ci moom itam mu jottali ko kilifa yi mu war a jaar yëpp ba mu yegg ci kilifa gi nga xam ne moo leen yónni du nuyu bu baax moom itam di sama xarit di nuyu Xaadim Jóob nga xam ne moom damaa xamul tiir lañ koy boole xaw ma ci noonu lañ koy boole di suñu doomi bàjjan di nit ku baax ku yiw ku mérité woo fañ ko teg di nuyu bu baax itam Papa Diouf di nuyu Omar Gueye di nuyu Modou Diagne Fada ak Mamadou njaay ak Cheikh bàmba ak ñi mu àndal ñëpp di nuyu itam euh, di nuyu Alioune Sarr ñoom ñëpp tudd Mor Ngom rek ñëpp a ngi ci biir sax waaye euh, sëriñ bi ci boppam moo bindoo noonu. di nuyu bu baax itam sëriñ Abdoul Ahad mi xam ne ni ko Ablaye mbay waxee léegi. jitaay bii ab jitaayam ndax noonu mu ko waxee sëriñ bi noonu lañu ko baaxee waxee fun euh, fun fi dem di ko nuyu ak sëriñ Mamor ak sëriñ Cheikhoum sëñ Mahamadan ak sëriñ Abdoulahat ak sëñ Maodo Cissé euh, ak kilifa yi nga xam ne dañ fee teew yëpp daal bu ñu limee lim bi day yàgg te euh, lii cër la boo xam ne sëriñ Basiiru daf koo joxe waaye moom bu waxee sëñ Cheikh Khady wax na sëñ Cheikh Khady bu waxee sëñ Sidi Mokhtar wax na teraanga dañu la ko dul jox nga di ko delloo waaye kaddu gi genn la ndax sëñ Cheikh Khady li mu wax léegi ci biir nuróo na ak li sëriñ Bassirou def dafa wax ni wax leen sëriñ bi ni ko ñun day faw mooy doon suñu mooy doon suñu kilifa te def nañ ko muy suñu kilifa lum nu digal dinañ ko def waaye duñ seen lu muy ñu bari nag dañuy wax ni buñ ma digalee ma def buñ ma teree mbay waaye moom nee na ko seen ci lu ñu tere loolu nag nuróo na ak lii nga xam ni sëriñ Bassirou def na ko muy jox ñu kàddu gi. liñ fi war a wax lépp moom dana ko wax xanaa liñ ciy wax kay mooy wax diggante borom daaru ak sëñ Baara diggante bu yàgg la kon cër bi nga xam ne Cheikh Sidou Mokhtar am na ko ci bis bii du daa toog doon Serigne tubaa soog cee am cër boobu diggante sëñ Baara ak borom daaru ñëpp dégg na ko wante diggante sëñ Baara ak Serigne Cheikh Awa Balla ñëpp dégg na ko digganteem ak sëñ Modou Awa Balla mi ko fi wutoon maam maam Thierno ñëpp dégg na ko digganteem ak sëñ Abdou Khoudous ñëpp dégg na ko waaye nag diggante sañ sii Sidi Mokhtar mii ak sëñ Cheikh Khady mii itam ñëpp dégg na ko ndax sëñ Cheikh Khady seeral na ko léegi dafa wax ni ban gënee tuut lam xamoon ci noonu nee ko loola dara jógu ca ba nëgën kon mel na ni seenu ànd ba leen ko yàlla boolee yàgg na kon nag suñu teew fii lépp lu luñ fi wax cër la rek ba nga xam dañ koo jox dañ koo jox dañ koo jox sëriñ bi ñu nangul leen ko kon sëriñ bi sëriñ Basirou sëriñ bi mi ngi lay jottali nuyoo ak siyaar ak ñaan ak cant ci bis bu tedd bii tey nga xam ne ci histoire taarixu lislaam sax lu nekk xew na ci sëriñ lu ñëw tànn ko jox ko borom daaru jox ko sëñ Modou Awa Balla ngir ñu di ci taxawal borom daaru ak màggal ngeen di ko ŋàbb di ko dox ba mu yegg si fii kenn ku nekk xam na ne fa mu tàmbalee woon ak fii mu nekk nii tey am na ko wuute lool kon kenn ku ci nekk bi nga ñëwee euh, la nga xam ne fekk nga ko fa dox nga ko ba mu mat sëkk. xam ni ñoom seen mbir mépp nguur mooy wax ni continuité mais continuité fii la am ndax continuité fi mu am mooy loo fa fekk doo ca seetlu la neex doo ca seetlu la naqari da nga naan lépp neex na ma ndax ki ko yoroon mosoo bëgg fi mu nekk nguur nag mën ngaa wax ne ku yor béréb am na koo xam ne ci sa te bëgg na béréb ba wala ku ci yow te bëgg na béréb waaye continuité fii mu am mooy lépp loo xam ne nit yor na ko ña sa gannaaw nga xam ne boo xëyoon tey duñ fa toog boo xëy boo fa xëyee woon tey ñoom ñoo fay toog yéene nañ la ko à cent pour cent kon loolu te buñ ñëwee bu buñ la fa wuutu woon it danañ def ba def lu raw nga daan def kon sëñ Cheikh Khady ñëpp xam na ne am euh, Ablaye mbay wax na ko léegi néeg biñ ko fekk siyaare ko ak nga xool ba mu fi tawee léegi ñaata milliards la def ci daaru nga xam ne loolu mooy continuité kon sëriñ baa ngi jot li siyaareem ak ñaanam ak cantam ci njabootu boroom daaru yëpp ak taalibe yëpp. góor ak jigéen mag ak ndaw bàyyiwu ci kenn ndax cër bi nga xam ne war nañ ko koo jox jox nañ ko ko ba mu mat sëkk jo cër bi nga xam ne war nañ koo jox seeni kilifa jox nañ ko seeni kilifa ba mu mat sëkk nun ñiy nekk fi wetam day te duñ ko sori doo toog mukk ay bis goo xam ne gisoo koo xam ne génn na ci biir dëkk bii ñëw dikk ci sëriñ bi wàññeeku waat dellu genn ay bis goo xam ne dinga ko toog te doo gis loolu du am te loola la ci firnde mooy tey jii ñu ne sëñ Sidi Mokhtar xalifa général de Mouride ñu ne ku ñu ko duppee ñu ne surtout maam Thierno ñu ne ku doomi maam Thierno Birahim ñu ne ku ñu ko duppee ñu ne sëñ Cheikh Awa Balla loolu doy na sëkk firnde ci wax jii nga xam noo ngi wax te ñoom yàquñu ci dara kat dañ koo topp nañ ko war a toppee téye ko nañ ko war a téye jàpp ko nañ ko war a jàppee loolu moo waral teewaayu sëriñ bi ci bis bii tey te lépp loo xam ne daf ko daan def ba nekk sëriñ Touba changé wu ca dara dafa continuer di def loolu loolu nag mooy ak mat xam ne cër bu ngeen am ci moom xam ne fi ngeen ko teg xam ne ni ngeen ko def loolu moo waral suñu teewaay fii tey nde kër gi yëpp na mu yëkkatee jëmmam ja dikk ñëw ci bis bi noonu la bëggoon kër gi yëpp àndandoo dikk teew ci seen kanam. noonu la àndandoo noonu la bëggoon nu àndandoo ko ñun ñëpp dikk taxaw ci kanamam te sëriñ Basiiru mii nga xam ne dafa dox ci diggante bi itam lépp loo xam ne war na ko ci digganteem ak sëriñ bi war ko ak digganteem ak ku fi nekkal sëriñ Touba mu daan ko dox ak yow man nañ ne bu ca doon dox benn tey jii mi ngi cay dox fukk ndax noonu noo ko gis te wama sayyidna illa bi alimna beneen bi ci topp mooy sëriñ bi wax ni mi ngi soññi bokki taalibe yi ngir ñu génn ci taax yi te dem ci àll bi liggéey ña nga xam ne defuñu fa dara amuñu luñ jàpp li ñuy wax taqale gone yi di ko wax loola la ñuy def nañ dellu ci la nga xam ne moom la fi maam yi bàyyi woon te ñi nga xam ne itam dañ leen a war a jàppale mooy nguur gi ñu jàppale leen ba ñu am lu ñu liggéey ndax benn réew ci àdduna boo xam ne jiitu nga sa moroomum réew te jiitoo woo ko ci mbay amul agriculture ku réew mu raw moroom ja rek ci la ko rawee te réew yi yëpp itam nañu jàppalee seeni population ba ñu mën a liggéey sëriñ bi di ñaan ñu jàppalee ko réew mi ba ñu mën a liggéey boo demee fu mel ne Israël day ba ñu fay dem ay xeer la ñu fa fekkoon ak montagne ak dara ak loo xam ne dara mu neesu ko faa ji waaye dañoo ñot ndox ma indi ko ba ca suuf sa daal di viabiliser suuf defar ko ba mu baax Israël bokk na ci meilleur pays yi nga xam euh, euh, euh, réew yi jiitu ci wàllu agriculture fi mu ne Israël bokk na ci te ñoo xëcc ndox ma indi ko. ñoo viabiliser terrain ya def lépp ba fii nag xëy na loolu fekku leen ci waaye am na wet goo xam ne mën nañoo koo jàppale nit ñi nañ leen ko jàppale ab taalibe nag li ko war mooy bu sëriñ bi diglee mu def bu sëriñ bi teree ñu bàyyi sëriñ bi bu dee wax ni dem leen liggéey yi bu waxee ni génn leen taax yi dem ci àll bi liggéey loola la mu ci jublu mooy wolof njaay day wax ni ku ëmb sa sangal ëmb sa kersa koy yaakaar ci moom dara bu la santee nga def wala bu la teree nga bàyyi ak ku mën a doon waaye boo liggéeyee ñaq jariñu am sa lépp denc ko yaay moom sa bopp liggéey day fay jox indépendance nit nit dafa war a gëm liggéey nit dafa war dafa war a gëm jaamu yàlla nit dafa war a gëm sëriñ bi nga xam ne amuñu lul moom te fun jëm ëllëg moo nu fa jëmee te moom fa mu jëm xam na ko kon sëriñ baa ngi dénk nit ñi ñu nangoo liggéey sëriñ baa ngi leen di dénk ñu nangoo jaamu yàlla sëriñ baa ngi leen di dénk ñu booloo nekk benn di jàppandoo di yëkkateendoo ndax loolu lislaam moo ko sant lislaam moo ñu wax ni waxte si moo bi abdillahi jamian wala tafarqoo toujours moo wax ko aaya boobu ba ñu ko lislaam sante te ñun defuñu ko américains yi ñoom dañu koo def réussir ko ndax cinquante de états mën naa ko wax ku yëngu ci adduna si ñu dal ci sa kaw man la luñ bëgg a def di ko def lu waay yor ñu nangu ko te tey jii booloo moo leen ko may buñ xajaloo woon doon kenn par kenn kuñ tooñ kuñ tooñ nga duma leen tey jii seetlul araab yi li ñu yor ci doole boo boo demee Irak tas na boo demee Libye tas na boo demee siri tas na ak ak yeneen ak yeneen te li ñuy wax matière première nga xam ne tey mooy li liy tax réew am doole ñoom ñoo ko yor te tey jii ku leen bëgg duma duma leen aw jàmbur sax ñoo yor seen réew ya di ko diriger te alxuraan waxoon na leen di wa'tasimu bi hablillahi jamii'an wa laa tafarraqu suñ ko jëfe woon kon loolu du leen dal kon nag ginnaaw nun jullit ñi li nu alxuraan digal defundu ko ñu gëmut alxuraan xam ne aay bi amal na leen solo ñu jëf ko ñoom am ci am ci réussite même Europe sax bi mu gisee Amérique jëf ko te am ci réussite daa ko dabaatal def Europe unie bu yàgguloo njaay la la def Europe unie dollar boo demee euro fi mu nekk nii day raw sax dollar léegi te ci te ca ñoom la tricher loolu kon nag as nun jullit ñi nga xam ne ñun la ko alxuraan digaloon rawatina nun taalibe Serigne Touba yi nga xam ne booloo nekk benn di déglu di di genn yor genn kàddu mu nekk ci xalifa général de murit bu nee waaw mu doon bu nee déet mu doon déet loolu nun ñii ba alxuraan di di digli digalee jullit ñëpp itam Serigne Touba ñëw ñun ñu rawatanu ci te sëriñ bi dafa bëgg ku fonk liggéey sëriñ bi dafa bëgg fonk jaamu yàlla sëriñ bi dafa bëgg ku fonk bennoo kon nag sëriñ baa ngi leen di digal ngeen dem ci tool yi liggéey ngeen dem ci tool yi liggéey te booloo nekk benn di jàppandoo di yëkkateendoo te événement yii nga xam ni ñoo ngi ko jublu itam euh, ñuy ñaan yàlla mu def ci jàmm ndax jàmm ci la lépp xaj te sunu mag ñu baax ñi tëdd fii de mu mel ni maam Thierno Birahim mi ñu defal bis bi tey nga xam ne mën nañ ko cee cité bañ cee teg kenn stabilité euh, maanaam ak dal bu amee ci réew mi mën nañ ne ñoom ñoo tax ak dal am ci réew mi bu ak dal amee ci réew mi mën nañ ne ñoom ñoo tax. ndax réew yooyu ma lim yëpp de am nañ alal am nañ lu nekk ci àdduna te taxut ak dal am fa waaye Sénégal a ngi nii de yàlla defal leen fi ak dal te dara defu ko lu dul mag ñi nga xam ne ñoo fi tëdd ndax dafa am benn bis may wax ak benn waaye mu ne ma ñi nga naan mag ñi tëdd fii ak mag ñi nangam daal ne Ousseynou ak Assane ña nga tëdd ca ca Irak xaw ma nangam wax a wax da te teewut gis nga la fa xew nangam ma ne ko Ousseynou ak Assane nga wax bokkuñu bokkuñu ak mën nañoo jege yonante bi de waaye suñ ñi tëdd fii ñoom kenn du ñoom te duñ kenn ba ma ko ba ma ko waxee loolu dama ko daal di nangul ndax nam ko daal di nangule dafa dafa mbaa daal di sitiyeel ku mel ni sëñ ndaam Abdourahmane Lo sitiyeel ma ku mel ni euh, euh, sëñ sëñ sëñ kii dem waaw sëñ Ahmed dem ak sëñ Mbacke Bousso ak ak ak sëñ Massamba Diop damaa daal di sitiyeel ñooñu daal di ne ma ñeenti mbër yii de kenn ku ci nekk bu sëñ tu bu du bu woon nekk gi ñu ne ci gannaawu sëñ tubaa foo feeñ diisu fa tudd mbër kon ñooñi kuñ nekk ci sa gannaaw lii nga wax ca ñooña war naa koo mën a gëm te ñi sëñ Tuubaa formé ñu mel noonu mbooloo lañu wax ji daal mu gudd mu gàtt message su Cheikh Sidi Muxtaar moom mooy nit ñi nañu àndandoo booloo nekk benn te wut jàmm kenn ku ci nekk na jàpp ni bu Sénégal yàqoo yaa ko yàq ñu yar gone yi jàngal leen kenn ku ne boo defaree sa kër dëkk bi yëpp defaru bu dëkk yi yëpp defaroo Sénégal gi yëpp defaru ñiy gërëm ñëpp di sant ñëpp tey ñaan yàlla mu may ñu nawetub jàmm tey ñaan yàlla mu def jàmm ci réew mi wasalaamaaleykum wa rahmatullah ginnaaw kàddu yi ñu fi dégg lu diis lay nekk waaye comme munta ñàkk ndax ndaw lanu te ndaw day jéem a taxaw jëmmi ka ko yónni loolu moo tax ñu tooge nii di waxe nii président de la république Macky Sall moo ma woo ma ñëw mu ne ma dama bëgg nga demal ma Daaru Muxti jiiteel ma délégation bi ma fay yónni ndax bu xat-xat taxawuloon maa doon xuusal sama bopp waaye boo demee nuyoo ba ngay yóbbu ziyaar ba ngay yóbbu yeesal ga ngay yóbbu nanga ko jël ko ci sunu sëriñ sunu waajur di sëriñ Cheikh Khady yal na yàlla guddal aw fanam sàmm ay cëram mu jël nuyoo boobu yóbbu ko ci kenn di sunu yaakaar di sunu kenu di xalifatu kullu murid Cheikh Sidi Makhtar yal na yàlla guddal fanam éwéral ay cëram waaye nag bu nu nuyoo ziyaar yeesal bala nuy tàllal sunuy loxo sant sant bu baax ndax xam naa alhamdulilahi rabil alamina yi ma ci wax dafa am lu tax 2012 bi président yàlla defee ginnaaw seenu ñaan mu jot ci réew mi ñu ne daaru mu xool xoolaat ne ma doy nga ma ci dem toogal ma daaru waxal ma daaru defe naa ne man ci sama bopp de waxuma président de la république waaye sama ñëw daaru jóge daaru gis naa ca yokk gu mat sëkk jërëjëf sëñ yokkute googu moo taxaat tey la taxoon ñu ñëw bu ma jëlee kàddu dinaa sant yàlla sunu boroom waaye nag santit ñii toog fii tey ñoom ñépp ku ci nekk di dox di taxaw lu mat sëkk lañu la jox ndax mën naa wax ne uma islam moo teew fii tey ndax lim bi macha allah alhamdulilahi rabil alamina sëriñ Basiiru ñu dey président sant na gërëm na yeesal na waaye ñun ñii mu yónni tamit day jaar nañu fu raw foofu ndax xam nañu lu ñuy wax bu baax a baax a baax a baax te yëg nañ ko yi tamit bu baax a baax a baax sëriñ sëriñ Moustapha am lu ma dey léegi ci ndigal Cheikh Baaralaat di sama sang waaye di sama xarit jaaraat ci man Mbàkke awma dara duma lenn lu dul alali sëriñ Touba. nëbbuuma ko dama koy doxe di ko jëfe ndombal tànk dafay dabaate te du mujj waaye li ma juddu nàmp te bu ma deeyee ñaan yàlla ñu yónni yu indi ma Tuubaa loolu mooy mujj moo jiitu te mooy mujj président nag su amee kóolute yaakaar ne la bëgg ci bis bi la mu ci namm muy pas-pas muy yéene mën naa ko mottali awma ak payam moo tax ma jéem a waxe wax joo xam ne nii moom dina ko taxawal taxawal jëmmam ci bis bi président sant na kër gi bu baax a baax a baax moo tax Mbàkke président di delluwaat rekk di dénku boppam di dénku réew mi di dénku askan wi mu am ay kàddu yu fi jóg di yu am solo kàddu yu jëm ci ndigal lu jóge ci sunu kilifa di Cheikh Sidi Mokhtar kàddu yi di soññaat askan wi ngir ñu delloo sunu bopp ci yàlla delloo sunu bopp ci liggéey président dina ko dégg te dina ko jottali ndax ñun ndaw lañu te bu ko déggee ndigal lay nekk ci moom ndigal lu muy jëfe mu am lu am solo lu mu fi wax ci feeñal am réew moo xam ne nii xëy na wawoon na demoon ba am fu mu toll ci liggéey ak ci jëf ñu am fu ñu toll tey loolu defe naa ne président am na ca foo xam ne nii toll na fa ci yéeneem ci jëfam ñaanalaat askan wi ñaanal président de la république ñaanal réew mi ndax am na luy am ci ginnaaw ci biti yeneen réew loolee Mbàkke bu agsiwul fii nun day xam nañ ne seen ñaan moo tax agsiw fi te sunum xel dal na ci lool maa ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp di jéggulu ci li dëng ci kàddu yi du yéeney kama yónni de sama matadi la man mii jërë ngeen jëf Mbàkke jërë ngeen jëf Mbàkke asalaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakaatu. asalaamaaleykum wa rahmatulahi yi maa ngi leen di nuyu. mboolem bokki réew mi bokki diine ji muy bis bu tedd ci diine ji ñépp bokk dolli ca nekk bis boo xam ne bis bu tedd la ci moom ngir sëriñ Touba ak borom Darou ti mu di leen nuyu mbooleem koo xam ne wuy si nga wooteem bila ñaan yi mu boole ci képp koo xam ne amoon nga yéene ñëw te am gàllankoor di ñaan yàlla sunu boroom mu may nu fekkewaat ko déwén yu baree bari te lépp ñu fi ñaan ak lépp lu fi dagaan sunu boroom mu defal nu ko na nga xam ne na lañu ko bëggee su gënee su gënu tit moom sunu borom mën naa sopp mbir ba mu gën mu soppil nu ko ba mu gën mu defal nu ko kon sëriñ bi sëriñ Cheikh Khady mi ngi nuyu mbooleem kilifa yi nga xam ne ñoo fi teew ci jataay bi waaye loolu lépp nag mu di leen seereel ak cantam ak ngërëmam ak feddilikoom ci ginnaaw sëriñ Cheikh Sidil Muxtaar mi nga xam ne moo di sëriñ moo di sunum sëriñ tuubaa ci kaw suuf képp koo xam ne li ngay woote ci sëriñ Touba dëgg la ci yow sëriñ Cheikh Sidil Muxtaar moo di sam sëriñ Touba gëm nag ci xool lay nekk wax di génne ci làmmiñ bët di xool xool di jàpp su fekkee ne lépp ànd na ci yow ne lépp ci sëriñ Touba la sëriñ Cheikh Sidil Muxtaar moo di sam sëriñ tuubaa kon kooku moom la sëriñ bi wax ne ni borom daarul mooti toppe woon ci sëriñ Touba noonee lañu toppe ci ginnaawam te képp ku fi nekkal sëriñ Touba ku nekk noonee la ñuy toppe ci sa ginnaaw sëriñ Mouhamadou Awa Balla mi nga xam ne noonu la toppe woon ci ginnaaw way juróom borom daarul mooti sëriñ Abdul Khoudous defoon noonee ñu ko def ci sëriñ Mouhamadul Moustapha ba ni mu agsee fii ci sëriñ Cheikh Sidil Muxtaar loola mooy wéy ba faw li fekk ñu tudd tudd sëriñ Touba mi ngi fi loola mooy am li fekk li ñu tudd ku ñu tudde borom daaru mooti mi ngi fi loola mooy am yàlla nanu yàlla boole ca ña nga xam ne dañuy dundal loola te di ko wéel tamit dëgg ci ñoom te nga xam ne dara du yàqoo ci ñoom loolu la sëriñ bi bëgg a leeral sëriñ Moustapha mii nga xam ne moo fi teewal sëriñ bi waaye sëriñ Abdou Lahad ak bokk yi fi teew yëpp ñu xam ne daarul mooti firnde ji gën naa leer sëriñ Moustapha mii ak ministre xaadim Diop mii li leen tax naaje mooy oto yi nekk génn buum tuubaa ak Daaru loolu mu jàngale lu bare bare bari nga xam ne seenu bu wootee ñoom ñaar keroog ba mu ko nee na nga sañci barab boobu le tudde ko Daarul Mooti maa tànn tur wi fortuwuma ko muy digganteem ak boroomam la ko fagguloon loola lépp nga xam ne borom daarul mooti dencukaayu sëriñ tuubaala la ca lay denc mbóotam mbóot mi léeg-léeg mu mosle ca tuuti waaye ku ne jàkk loolu ku ko gis ku nekk xam nga ne barab bi benn bee genn kilifa la am benn baat la am menn mbir a ko lal te mbir moomee bët du ca jote kon nag li Cheikh Sidul Muxtaar di wax di wax ne borom daarul mooti ñi ko am dañoo xamut li ñu am lumu yàlla nu yàlla musal ci loolu ma ne ko ñaanal nu ba nu bokk ca ña nga xam ne danañu jéem a xam li nu am lu mu li nu am ku nu ko bokkalul ku nekk day dellu ci la ko sëriñ Touba waxoon ne ko maa ngi lay cant cant goo xam ne ku dul yow dana la ci ñee yaakaar naa ne tudd ku ñuy tudd tudd borom daarul mooti ku nekk war ngaa am mbégte akub sago akub sagoo ci borom daarul mooti ngir sëriñ Touba. ndax lépp sëriñ Touba la sëriñ Touba la yàlla jox mu ti ci séddaale ay cër kenn ku nekk ak lëm la sedd waaye cër bu mu sedd borom Daaru Muxti la ca gën tee doy waar mooy mbooleem ku mu bokkal Mamour Anta Sali nangul nga ko cër boobee nga xam ne moom la sedd borom Daaru Muxti loolu doy na sëkk kon sëriñ bi day feddali ak njëbbalam njëbbalug mbooleem ku aju ci borom Daaru Muxti ni mu ko baaxoo defee at mu nekk di ko yeesalaat ci diine boo demee labbayka yi ngay def su fekkee ne mbir dafa yees da koy yeesalaat yeesalaat ci diine dafay fàttali te fàttali dafa baax loolu moo tax sëriñ bi waxtu wu nekk bu jataay bii amee mu feddali ak njëbbalam ci ki fi nekkal sëriñ Touba ak mboolem ñi nga xam ne ñooy njabootu borom daarul mooti te loolu yaakaar naa ne Cheikh Sidil Muxtaar mii nga xam ne li mu am ci borom daarul mooti te sëriñ Cheikh Baaral Ahad wax ko léegi. muy sëriñ Mouhamadul Amine Baara mi nga xam ne sëriñ Touba bi mu ko boolee ak borom Darou Mouhty sëriñ Cheikh mii nga xam ne moo fi nekk tey mag ci kër sëriñ Baara mag ci kër sëriñ Touba dafa wax ne sëriñ Baara waxtu boo xamee ne mos naa gis borom Darou Mouhty dafay mel ne am xar bu jisee keneen mel ne gaynde loolu sëriñ Touba moo ca roof